nataalu ñaar ak juróom-ñaar ab chrétien mooy mindeef mu bees bi bëgg a gëm waxu yàlla day dellu ñukkal yàlla ci bàkkaar yi mu ko jéggal ku gëm Jésus doo nangoo bokk ci ñaawteef yi mel ni njaaloo xuloo sàcc mbaa jaamu xel bu sell bi dina la moytuloo lu bon def loola lu baax